suivre nga sànq li nga xam ni mooy nouvelle yi ñu jëlee ci euh, hôpital bi Ousmane ko nekk mu nekk nouvelle yoo xamante ne en tant que des amis et sœurs ça nous a beaucoup bouleversé tout Yewwi Askan Wi on a eu du mal depuis suba ba léegi pour xool nan la ñuy organiser wu ba wax ko sénégale yi parce que jàpp nañu ni euh, avocats yi ñu ngi wax fan yëpp mais xëy na dafa am fu ñu mun a yem par rapport à secret médical ñun itam en tant que des politiques euh, par rapport ak suñu nawle suñu xarit euh, am na peut-être euh, yenn situation yi xam si assez délicat à divulguer au peuple sénégalais mais bu ñu demee nag ba yónni ay nit ci ñun ñu dem tiim ko gis ko gis ko ci anam boo xam ni dalul seen xel dalul suñu xel foog naa tey ku gis kanamu Aïda Mbodj euh, gis ko mu nekk la grande linguère du Bawol nga xam ni foo ko fekk euh, euh, macha allah daram du manqué nga gis ko ni mu ñëwee ci conférence de presse bi devant le peuple sénégalais nga xam ni waajalul boppam te xolam neexul ku gis doyen Habib même chose donc euh, euh, état d'esprit boobu la ñu nekk mooy inquiétude ah donc tey Seydi Maimouna Bousso inquiète euh, et assez tendue ci situation bi nga xam ni moom lañ moom lañ nekk di dund ak moom la Ousmane Sonko di dund. mais sans pour autant nga trahir un secret médical. Mm-hmm. wala des données personnelles et intimes lan moo la inquiété ci situation bi yow dem nga gis nga ko ak sa bët. non gisuma ko ak suma bët moom laa la wax ne la ñun euh, dañu joxe euh, mandat euh, doyen Habib ak Aïda Tata Aïda pour ñu dem gisal ñu ko yombul woon nag même ñoom ñaax jafe woon na lool bi ñu jógee tubaab ba léegi pour ñu gis ko li ma inquiété au-delà de li avocat yi bind fan yëpp di def ay communiqué quand di alerter ci état de santé ay soxnaam wax ci ay jegeñaaleem wax ci euh, bëtu soxna ayda mooy suma bët bëtu Aida bëtu euh, Habib Sy mooy sunu bët suñu bëtu yeewi la parce que ñun noonu la ñuy fonctionner bu ñu yónnee kenn kenn ko mooy représenter li ci des donc bët yi ñu teg ci kawam ba mu euh, taawal seeni rangooñ ba xàmmewuñu ko ba le combattant le soldat bu nga xam ni dafa mës a rester ñu gis ko ci anam boo xamante ne ñoom tooy na seen xol dafa mel ni rek man maa ko gis parce que seen ay wax doy doylu naa ko euh, euh, doylu naa ko te xam naa ni ni ma leen gisee bañ fa jógee ñëw euh, liñ fa gis neexu leen loolu nag mooy li ñu tiital mooy li ñu tiital mooy li nga xam ne itam dañu am devoir wax ko sénégalais yi peut-être que pathologie bi mënuñu ko révéler parce que du suñu role comme li ma la wax secret médical dafa am mais ku xam Ousmane Sonko nga xam ni boo ko gisee yaa ngi gis première chose euh, sourire bi yaa ngi gis euh, nit ku taxaw yaa ngi gis nit ku dëgër soo ko fekkee ci jamono moment boo xam ni xàmmeewu la xàmmee xàmmeewu la yow ci sa bopp xàmmeewoo ko c'est tout à fait normal que ñu inquiété ah wu. bon? c'est aller aussi loin. Euh, euh, il ne plus les gens. il n'a pas il n'a pas vous avez du mal à le reconnaître. il n'a pas reconnu ñi fa nekk ñi fa demoon ñooñu itam reconnaître ñu ko ah parce que je pense que euh, naa Sénégal dañu am benn sunu dëkk bi de man sama bopp reconnaître tooguma ko parce que da ngay gis euh, soxna yi nit ku ku koy sëyal nga xam ni ku nekk da nga am sagu nekk ci ginnaaw jàmbaar nekk ci ginnaaw nit ku taxaw. mu taxaw maa ngi leen di nuyu au passage ñu taxaw ne bi ñu gisee sunu borom kër daf ñu ndurool sunu doom bu ndaw bi ñu bàyyi ci kër gi xam nga loolu ça veut dire déjà jarul faramfàcce fàcce ça veut nit kii am na amaigrissement dem na sax ba ne ci tuutiwaay bi ak ci leeraay bi mais ñu jàpp ne xëy na waxu soxna la rek foog naa nit du wàññi boroom këram mais ñu ñun ba tey afole wu ñu woon parce que jàpp nañ ni xëy na bëtu cofeel moo moo nekkoon di wax avocats yi alerte depuis quelques journées l'irréparable peut se produire maître Ciré Clédor Ly maître Khoureychi Ba toujours dañuy bind maître Ciré Clédor démb moo ci mujj mu wax ne euh, il est temps il est plus que temps avant que l'irréparable ne se produise peut-être dafa am ñu jàngul wala ñu buggul liir wala xëy na euh, dañu jàpp ni mbindum avocat la wala xëy na ñu jàpp ni stratégie avocat la parce que am na lu nekk am na fi les gens l'ont considéré comme ça. voilà am na ñu ko jàppee noonu la politique voilà, c'est la communication c'est ça qui est malheureux am na jàpp ni manipulation la am na ñoo xam ni euh, ba jamono yii yu weesu yëpp ak li ñu fi wax lépp malgré que médecin yu ne na nit ki mu ngi réanimation 27 jours de privation de nourriture. Euh, def ay malaise euh, ñuy wax waxu paralysie de côté de membre d'une partie de son corps ñu ne manipulation politique la tey nag ñun bët yi nga xam ni di bët yu ñu wóolu di bëtu euh, suñu président de conférence des leaders ak Soxna Aïda tegu ci kawam te bët yooyu mënuñu ñu manipuler ndaxte amuñu benn intéret manipuler ñu parce que comme li ma la wax ñun bu doon suñu suñu décision politique on ne va jamais dire que Ousmane Sonko dafa nekk un danger de mort parce que c'est un combattant c'est un soldat qui a décidé de se mettre debout qui a décidé de se faire violence qui a décidé de souffrir dans sa chair pour faire entendre un combat pour faire passer un message kii ñu bëri peut-être ñu ko comprendre ni ni xiif méttee sénégalais bi nga xam ne bu wooree ba ngoon jot soo ko nee doo ndogu sax mën naa xaru waxuma la nga teg ci ñaari fan lekkoo waxuma la ñetti fan ba mu nekk ñaar fukki fan a juróom-ñaar nit ki teg di ko dund bakkanam di ci root ndànk-ndànk muy gis boppam ay mbokkam di ko gis muy wàññeeku dem ba perdre connaissance ñu yëkkati ko prison yóbbu ko ci ay loxo docteur mu continuer di combattre xam nga kooku ñun ban ban sac moo nekk ci wax ne bakkanu Ousmane Sonko dafa nekk ci xottu gerte ban sac moo am ci wax ne Euh, la vie de Ousmane Sonko est en danger. mais xam nga tamit amul loolu mënul nekk manipulation mais xam nga euh, ay partisans am ñooy wax. Mhm. ay avocats am ñooy wax est-ce que bu administration pénitentiaire euh, jëloon ay responsabilités am informer l'opinion sur l'état de santé réel de Ousmane Sonko est-ce que du loolu mooy est-ce loolu gënul mënul gën a porter mënul gën a alerte les les les Sénégalais est-ce que l'administration pénitentiaire prendrait le risque avec l'état du Sénégal. Euh, ñu bàyyi Ousmane songo ci situation boo xam ne mën na ñàkk bakkanam euh, encore heureux que administration pénitentiaire waxul parce que ñoom je pense que Ousmane Sonko est en prison au niveau de de pavillon spécial mais euh, c'est un prisonnier qui est entre les mains de médecins médecins yi ñoom ñoo yor son dossier médical je pense que ak nu ñu ko garder garder pour kuy ñëw ñu fuye la euh, filtrer Euh, euh, euh, encadrer ko sécuriser ko ba nga xam ni lu koy gaañ du fa dugg te dara tamit ay message du fa dugg loolu mooy rôlu gardien parce que administration pénitentiaire ce sont de gardiens ce son sont pas des médecins médecins yi ñoom ñoo koy xool mais lan moo gën a rëy ak gën a weesu médecin bu la yóbbu réanimation je crois que aussi des fois ñun may mun a dañuy bëgg di di di di di di di nax suñu bopp daal médecin bu assermenté bu yëkkati nit su euh, euh, hospitalisation classique yóbbu ko en réa depuis plus d'une semaine mu ngi en réa ça veut dire que la situation ne s'est pas améliorée. mais pourquoi ces médecins assermentés là. oui qui ont le devoir de préserver la vie humaine. Mm -hmm. la vie humaine qui est au-dessus de tout. Mm -hmm. pourquoi ñoom du ñu jël seen responsabilité wax ak l'État du Sénégal waa ak l'administration pénitentiaire ne leen euh, ce patient la mënatuñu ko garde dans ces conditions-là. je pense que les médecins ñu ngi def seen rôle en tout cas je am naa ci yàqin parce que bu ñu defuloon seen rôle kon néegi di tàggee nañ ñu son Sonko parce que ku lekkul naanul nekk en réa ça veut dire que médecins yi ñoo def seen liggéey kon ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu te gëm naa ni médecin yooyu mu nekk ci loxoom. man gënuma leen nekk patriote wala citoyen te gënuma leen bëgg jàmm wala bëgg bàqanu Ousmane Sonko. mais ñoom bu ñu alerté woon gëm naa ni tamit gëm naa ni tamit euh, Maymuna l'état dara ump ko ci état de santé euh, Ousmane Sonko parce que nag fi mu nekk état moo ko fa bàyyi Ousmane Sonko day def ay analyse tous les jours lu xew ci hôpital bi état bi xam na ko hôpital militaire la ñu wax du hôpital privé. administration état ministère de la justice ministre de l'intérieur xam nañu situation Ousmane Sonko dara umpu leen ci médecin bi lii la mooy def ay rapport di leen ko wax fu mu toll lii la mooy faj le patient ci lu mu mun donc mbir mi dépassé na foofu euh, jamono jii may wax ak yow euh, su su ma sañee ni du nekkatul sax ay libérer Ousmane Sonko mooy l'urgence L'urgence, c'est sauver Ousmane Sonko. Et L'urgence, c'est éviter que Ousmane Sonko ne meure. Mais le sauver Ou que Ousmane Sonko ne rentre dans un coma léthargique qui peut demain endommager sa vie et sa carrière. Euh, l'urgence c'est le sauver mooy ñu évacuer euh, parce que il en train de bénéficier de soins. Mm -hmm. mais l'urgence c'est quoi. l'urgence c'est le sauver quelqu'un qui est déjà dans un état. médicale assez, assez grave ne peut pas en plus subir le stress et le trauma de, de, la, de, de, de, la, de la privation de liberté. Donc il faut le faire libérer. Euh, sa famille aussi ne peuvent pas être à son chevet tous les jours parce qu'il est prisonnier. Ils ont des jours de visite. Ses avocats, euh, ses, ses, ses, proches. Euh, quand quelqu'un est malade, nous beaucoup hôpital, le malade a besoin de tout pour guérir le malade a besoin de soins médicaux mais malade dafa soxla itam présence d'êtres et de parents chers dafa soxla un cadre euh, boo xam ne du am stress un malade bu nekk ci situation boobu ba ay médecins mënuñu ko génnee réa c'est-à-dire que Ousmane Sonko bu bu euh, état de santé tane woon ministre de la justice moo ko wax nee na mu ñu ngi koy soigner mais bu tanee day dem Sébikotane ça veut dire que tanewul donc ñun on n'invente rien du tout. mais mais mais bu tanewul nag nekk ci état de santé boo xam ni mu ngi détériorer wu de jour en jour l'urgence aujourd'hui ñun suñu responsabilité mooy ñu wax ne du ñu accepter Maïmouna Ndour Faye wala keneen suba nañu ah mais yéen wax ngeen lu ne mais alerté wu leen vous n'avez pas dit que c'était aussi grave nous disons que c'est plus que grave nous disons que fi ñu toll nii ñun li ñu ci xam li ñu ci jot ak li ñu ci gis. dara dootuñu bett. te nag hmm. kenn kese moom moo am le pouvoir tey de Dieu sur terre pour sauver Ousmane sunko mooy Macky Sall ko fa en tout cas moo mën a fexe ba ay loxoom duñu ci salte moo mën a fexe ba fu mu eggoon ak Ousmane Sonko ba mu ne ko su ma bëggee liquider faudra te salir les mains du ci salir ses mains loolu képp moo ci des parce que rien ne dit même que Ousmane bu ñu koo bàyyi woon tey mu continuer ay fajoom dina reprendre sa santé initial bi mu amoon